salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki Diassigui TV ñu ngi amaan mbégte bu baax a baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla dolli jàmm ci mim réew di wax na nag yéen a ngi seen émission bi nga xam ne moom la wax émission toj-toj xam naa bala maa xuusandi rek damay daal di nuyu daal di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu si fi nga xam ne mooy seen i njaboot. waaye tamit du ma fàtte ñi nga xam ne caabi faree na leen ginnaaw yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla dimbali ba ñu dellu siwaat fi nga xam ne mooy seen i njaboot waaye du ma fàtte nag ñi nga xam ne ñooy way dawde yi maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na suuf woyof seen kaw te yàlla xare leen fi nga xam ne mooy àjjana yi gën a kawe maanaam firdawsi di wax ne nag santaat yàlla bu baax di waxaat amaan nañ mbégte waaye tamit di waxaat nag amaan nañu njàqare di waxaat nag lenn chaque jour ak li nga xam ne day xew ci mim réew waaye chaque jour ak doomu aadama li muy fas yéene di jokkalante ki nga xam ne mooy moroomu doomu aadama mu mel ni nit nag nit la war a mën a doon ndax gannaaw ba yàlla bindee nit bindi mala lenn moo leen wutale maanaam mooy xel te xel moom bu fekkee nekkul ci doomu aadama bi rek amaana mën nañ laa considérer li nga xam ne moom mooy mala ngeen baal ma ci kàddu gi bu baax a baax a baax a baax a baax toj toj bii nag toj-toj bu doy war la daan naa ami toj-toj daaj naa am ay problème yu ñu may rencontré di ma ko wax waaye bii da caa rawati maanaam bii da caa nekk boo xam ne man yaakaaroon naa ne nit sañut li ne mel waaye ndeke réew mu ñu nekk nii nag lépp loo xam ne gisoo ko rek bul ko weddi neel gisuma ko wala wax waxaguñ ma ko wala wanaguñ ma ko ndaw si nak dafa nek fi nga xamne moy keur yaayam ak keur papam waye nak yalla da ko bind bind bu taru bind bu rafet sha allah mu nek nit ko xamne nak sun borom boroom mi ko bind mom moy xol naka neex bu binde ko doomu manam bi manam dalay bind ci khalimam bu rafet manam dalay bind ci jekkay bu rafet manam dalay bind nga nek ko xamne ne néew ma rafetoon ndax yalla du bindul ñaaw waye da fay nek lo xamne rek outé day am ci digënté nit ak nit ndax gannaaw yalla mo sàkk suñu baram du suñu baram dara tolloo ci amana buy bind nit ki non la koy bindé dara du ci tollo ku ci nek nak ak la ngay am ak wërsëg ba ngay am ak ni nga xamne non nga wara amé mu nek ak nak tantam ci bir manam wujju yaayam wujju yaayam nak amna benn dombu jigen bo xamne liñu rawante ak mo xale bariwul ndek wujju yaay bi mu ngi tek bët ki nga xamne moy xalé bi manam ci jekkaayam bu fekkoon nit ku nek moy bindu bopam man mii duma melni yow mi may setan do melni waye waaye borom moy xol la ka neex mu def ko ken munu ci dara kon sunu borom lu mo xass ba def rek war nañu ci mëna bayyi xel te xamne nak li mbir sunu borom la ndax jambi namé yalla nam amana nam nam sunu borom kese moy nami nami kon nak pour man nit amna lo xamne du xalat bu rafet gannaaw yalla mo bind ndaw si bind sa dom ñu utlante ñu gënlante manam ci tar pour man lila war mom moy ka ni nga considérer ko comme sa dom parce que même bu dara yaangi sey ak bayam té nak olof day faral di wax nan doomu jil la waye dom yépp dom la ndax dom yépp yalla nga ko bindé ci aras té nak nit nag dafa am loo xam ne foog nga bàyyi ko xel ndax gannaaw ba ma waxtaanee ak ndaw si bu baax ma ne ko nag lan mooy seen problème lan mooy problème mu kër ga parce que am na loo xam ne ci yow la nekk te il fallait que nga wax ma ko ma mën cee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi may seetaan waaye ñoom ñooy ñi nga xam ne wóolu naa seen xalaat te saa yu ma defee ñu jox ma li nga xam ne mooy xalaat bu rafet mu ne ma nag tàntam dafa bés mu fekk ko mu toog ci ëtt bi maanaam. mu bettee ko ginnaaw daal di koy sotti saafara waaye jot nañ faa jàppante waaye ba mu ci jógee boobu ba léegi ci diggante bi am na jëkkër waaye lenn rekk mooy problème te lenn moo xam moo nekk loo xam ne dafa doy waar doy waar ba doy waar ba nga xam ne moom ci boppam xamul sax mbir yi fu mu ko toll maanaam tànta ji da koo liggéey liggéey boo xam ne fu mu toog dem rek lay xalaat tas na ndax liggéey bi ñu ko liggéey maanaam fu mu toog moom du xalaat toog moom toog reposé wu déedéet fu mu toog fit bi day tëf tëfi xel mi day naaw maanaam ngeen baal ma ci kàddu yi mën naa ne dañ koo naawtal maanaam du toog day dem rek te nee li ko jaaxal moom mooy que ni dem bi muy dem mu fekkoon day xam sax fi muy jëm ñu ne waaw mais day dem rek di taxawal ba guddi jot mu doog a ñëwaat. te loolu bokk na ci li tax nag jëkkëram tàqalikoo ak moom parce que yaakaar na ni moom moo yor jikko boobu jikko boo xam ne da ngay taxawaalu rek ndeke bu xooloon ba ca biir a biir a nekkul ne moom mooy taxawaalu taxawaalu boppam def def buñ ko def la waa man pour man su fekkee ne nit nga nit njaay nag am na loo xam ne yàlla moo koy def ci doomu aadama amna lo xamne man soxor la koy def wala ma def ko iñaan yow mi may seetaan su fekke ne yow ya jëf jëf ju melni wala ya ngi xalat pour jëf jëf ju melni wala sa xel dajon na sax pour nga jëf jëf ju melni ma ngi lay ñaan nga delu wat delo ci sa xel bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha baax te xamne nak ëlëk du añ du reer waye lu mata sédd la nebu dom dor domu jambur amul fen bu fekke ya nga calculer di xalat euleuk yow mal te nit ku nek ñaan nga yalla nga ñeuk genn aduna sa dom mu top ci say way nga la bo njëkkee genn sa aduna sa dom fexel ba tank yu muy top na nek tanku yo xamne tank yu rafet la ken du ne ko sa ndaye fi defon li wala sa baye fi defon li lol nak likoy indi moy liggéeyu ndaye olof njaay nag day faral di wax naan liggéeyu ndey añub doom barke ba day daal di doon baay waaye nit ku nekk rek am na loo xam ne bala nga kaa jëfandi wala bala nga kaa defandi nga xalaat ci bu baax a baax a baax delloo ci sa xel bu baax a baax a baax ñetti fanu bàmmeel ku ko dul xalaat rek amaana lu la neex defal maa ngi tàggatoo di leen wax ne nag a asalaamaaleykum mu ngi leen wax ngeen xaar ñu ci beneen émission chaque jour rek ak émission bi nga xam ne moom mooy ñëw chaque jour bi nga problème yi nga xam ne moom mooy dikkaat muy ay fee yoo xam ne nit yaa ngi koy dund muy ay fee yoo xam ne doomu adama yaa ngi koy jànkoonteel seeni moroomu doomu aadama man dinaa la ko indil incha allahu rek tegal la ko ci fi nga xam ne mooy Diassigui TV salaamaaleykum ñu ngi tàggatoo ak yéen di wax ne ba beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf.